bokki jullit yi bokki Sénégal bokki Afrique bokki àdduna wërngal këpp fii ci seen émission Ramadan Moubarak jóge fii ci 7TV di dem ci àdduna wërngal këpp émission boo xam ne <coughs> ngir fàttaliwante li nekk ci koor ak ci diine waaye ak li nekk ci jikko yi ak lu làmb ci waxin yi ak jëflante yi te ñu tuddee ko addiinu wal muamalaat mu mel ni jëflante yi jëflante ci biir àdduna bi moo ngi jóge ko ci biir kër yi ci famille yi ci koñ yi ci dëkk yi ci réew yi ci kontina yi ba àgg ci àdduna wërngal këpp bu mel ni sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa ba muy wax ak ñun dañu jàngal wax ñu ne yàlla wax na ko ci alquran mu indil ñu ko jàngal ñu ko ne lépp loo xam ne sayyiduna wa nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam indil na leen ko jël leen ko ngeen téye ko ngeen jëfandikoo ko ngeen jëflante ko waaye lépp lu mu leen tere ngeen bàyyi ko ma ataakumu rasula fa xuzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu mel àgg nañ ci jamono boo xam ne ni ñu ko waxee woon ne dugg nañ ci koor kor goo xam ne moomuloo ko man moomuma ko keneen ki moomu ko kor goo xam ne démb la ko yàlla fi yàlla indi ci kaw suuf jëlee ko ci ay yónnent tàmbalee ko ci ñoom indi ko ba ci ki nga xam ne mooy sa yónnente mooy sa yuduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mel ni kutiba alaykum siyaam bi maanaa furida alaykum shahru sawm ni nga xamante ne noon laa ko joxe woon yeneen yónnante yi ni noonu la ko joxe yónnante bi sallallahu alayhi wa sallam woon teew nag benn bu ci nekk nañ ko daan defe ak benn bu ci nekk waxtu moom daan tàmbali ak waxtu bu mu nekk itam léer bañ ko daan dog moom koor mu mel ni <coughs> moom koor googu bu ñu waxee ne première chose ci koor weeru koor mooy nga woor première chose ci koor ci weeru koor mooy na nga woor nga soog a teg leneen <coughs> si biir koor googu <coughs> nga xam ne jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu jox na ko mbindee fii jàngal leen ci ni ñu ko war a defee fi ñu ko war a defee heure bi ñu ko war a def heure bi ñu ko war a tàmbali ak heure bu mu war a jeex ak temps bu muy diir su fekkee ne heure la mu ne wa kulu washrabu xata yatabayana lakum alxaytu al abyad min alxayt al aswad min al fajr kon loola mooy tàmbali bi waaye kon diire bi nag mu ne summa atimmu siyaama ila lay nga continuer ko ba guddi gi jot comme nag bëccëg bi mu ngi tàmbalee ci fajar fajar boobu nag la wax ne su fekkee ne fenq na rek bismillah acca am ñoo xam ne dañ koy tënk di ko indee ci bi nga xam ne mooy asalaatu xayru min an naw asalaatu xayru min naw mu danay dikk am koo xam ne dana def salaatu xayru min an naw mu def ko fekk ne fajar si xar na am ñoo xam ne asalaatu xayru min an naw mi ñu ngi koy def balaa fajar si di xar kon yow mi nga xam ne yow yaa dëkk ci koñ bi war nga xam ràññee ci diggante heure yi ñuy ndogu heure yi ñuy xadd ak heure bi nga xam ne ci la nit ki war a def salaatu mu mel ni kon am na ñaari nodd bu dee demee ci sunna sayyidina wa nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu doon wax ne bilaal nay noddu avant li maana waxtu jóg pour dem julli ji bu jotee bilaal na jóg noddu mu wane ne préparation julli jot na ñuy pare julli di pare di ñëw di toog di nekk bi asalaatu xayru mina nawm mu ne ko ummu maktum moom nay jël foofa ibnu ummu maktum nay jël foofa muy nodd kon ki nga xam ne mooy nodd nodd bu jëkk ak ki nga xam ne mooy nodd nodd salaatu xayru mina nawm yi waruñoo bokk bu demee ci sunna ngir nit ñi mën a teqale xam ne kii de bu mu noddee mooy préparation julli la waaye kii moom bi mu noddee mooy salatu xar mi ñoom jot na mooy fajar saa ngi xar kon kooka bu ñu ko xasee dégg rek ñu tënku ne kon fii nii war nañ fee mën a yem kenn dootul lekk mu indi coow lu bari dajja kabira fi laalam wa laysa fi fi lbalad faqat wa innama fi laalam alislami kullu waxuma la Sénégal kese waaye adduna bi yëpp réew mu ne ci aalamul islami da nga fekk na ñu ngi am tuuti juyaatu ci diggante asalaatu xayru mina naw mu nekk loo xamante ne xëy na dafa am al mutasaddidun ñu xam ne dañoo dëgëral mbir yi am ñoo xam ne dañ ko woyofal ba mu ëpp am ñoo xam ne dañoo digg dóomu kon nañ dem ci digg dóomu bi wa kazalika jaalnaakum ummatan wasatan li takunu shuhadaa ala nnaas nga mën a woor weeru koor bi ba mu mat te doo ci yàq kon fajar si yàlla ne kulu washrabu xata yatabayana lakum alxaytu al abyad min alxayt al aswad min alfajr loola mu bari am firi buñ ko firee ci diggante ne wëñ bu ñuul ak wëñ bu weex ngir waaye buñ ko waxee moo di ne am na benn ceñeer buy ñëw wala am na benn lumière buy ñëw boo xam ne yaa ngi koy xàmmee ci ne lii nii bokkul ci guddi kon diggante boobu nag boo ci yéegee tuuti rek yow yaa ngi ci li nga xam ne foofu la julli war a yem foofu la lekk war a yem ak naan warul dem ba xóot lool bi àgg ci julli ga waaye itam warul yéeg ba dugg ci guddi démb axakañ ndax su fekkee ne yaa ngi koy def mun na am nga yàq ci koor gi boo duggee ba mu xot mun na am tam nga ëppal ci su fekkee ne yaa ngi yéeg ci ginnaaw qul kazalika ja'alnakum ummatan wasatan li takunu shuhadaa ala nnaas alquran ne def naa leen boole leen ci xeetu diggu doomu kon na ngeen diggu doomu ci mbir yépp ci lekk ci naan ci takk ci sëy ci liggéey ci nelaw lépp lépp daal nangeen ko dem ba mu yemandi kon lu yembambaay moo gën lu ëpp waaye moo gën itam lu yees yàlla ne seen xeet bi nga xam ne moo xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne boole laa leen ci loolu mu mel ni kon war na nga xàmmee nga ràññee diggante nodd bi waaye itam war nañu organiser jumaa yi ba ñuy nodd ñu xàmmee ràññee bari waa ji noddukat boo xamante ne jàngul dañ ko jàngal nodd mu dem noddi waaye xamul fiq kon ki xam ne moo jàng fiq ba ba xam xam ne responsabilité jullit ñi dafa làngu ci kaw ay mbaggam kon kooku war na indi li nga xam ne moom mooy wareef bi am ci diggante asalaatu xayru min an-nawm di nodd boobu nga xam ne ci lañuy bàyyi lekk wala boog ci ndëdd bu jëkk bi nga xam ne ci lañuy waajale waajalee julli su fekkee ne yàlla dogal na nga xam te man ko kun na wóor ne yow sa wareef yow imam bi mooy nga xamal leen heure yi nga xam ne heure bi bu jotee rek ñu def li nga xam ne mooy salaatu bi su fekkee ne tam romb nañ loolu passé nañu foofa mu des am na koo xam ne dafa nelaw yeewul diggante bi nga xam ne ci lañuy leen nodd bu njëkk ba ak itam li nga xam ne mooy nodd bu mujj bi nga xam ne mooy salaatu xayru ne nawm nelaw na ba ñu salaatu wala te ba ñu commencé nodd bi rek mu yeewu kooku lan moo ko war axa foofu nag la ixtilaaf amee ci ulama yi ne ndax kooku pare na ci ndog ci xëdd wala déet wala kooku war na xëdd wala nu muy xëddee ñu ne comme nag sunna la pour nga lekk fajar pour nga xëdd ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ne sax xaru fa inna fi suxuri baraka dina xëdd ndax xëdd barke am na ci lu baax a baax a baax dana la dimbale ci koor gi xadd dana la dimbale ci bis bi xëdd dana dimbale ci sa yëngu-yëngu ci bis bi nga xam ne ci nga xëdd waaye xadd mën na laa dimbale bu baax a baax a baax itam ci sa wet gu yaram nga xamante ne doo am loo manqué ku mel ni kuy manqué fer wala kuy manqué suukar wala ko xam ne day manqué Euh, euh, euh, koo xam ne lu bëre ba day manqué ci ay cëram xëy boo lekkee mu ne donte tàndarma la sax wala ñett tàndarma nga jël ko kon jëlee tàndarma nga lekk mu bokk ci ñam yu am mbarke yi ñam yi nga xam ne boo demee màkk fekk fa Medina fekk ba léegi waaye bal alamul islam yi kullu foo dem ci adduna bi léegi am nañu tàndarma bokk yi mu mel ni kon kooku nga xam ne jóg na fekk na ne imaam bi wala bokk noddukat baa ngi nodd mu tëb ci ay nelawam ñu ne axa kay kooku may nañ ko mu gaawantu jël lu woyof lu gaaw lu mu mën a xëddee naan ndoxam su ko defee nag jàpp koor loolee nag boo ko seetloo ci ñun ñu koy defee toujours dana valable ci ki nga xam ne dafay noddu salaatu xayru min an mi avant fajar bi si xar di xar ak ki nga xam ne daf koy noddu après fajar si di xar am na dëkk yoo xam ne boo fa demee diggante salaatu bi ak julli bi mat na lu tolloog 34 wala 24 minutes am yoo xamante ne vingt 24 minutes yooyu quinze minutes lañ ciy am diggante salaatu bi ak julli bi am ñoo xam ne seen salaatu mu ngi dugg nekk ci 5 minutes après. julli bi avant julli bi kon ñoom dañuy salaatu cinq minutes ñu soog julli léegi nag nga xool nag nga natt nag salaatu boobu nga xam ne nit ki moo nekk ci cinq minutes avant julli ak ki nekk ci dix avant julli ak ki nekk ci vingt quatre minutes avant julli ou vingt minutes ou quinze minutes wala ba minutes yu yëpp nga xool ko nga natt ko nga xool yow mii nga xamante ne yow yaay woor nga def ci fulla ak fayda nga def ci jaamu yàlla bu mat sëkk ne kon nëdd bi wala salaatu bi wala heure xëdd bi ci bii lay yëpp nga xamal ko sa bopp alhamdulilahi rabbil alamin mu am ay jullit yu baax yu tedd yoo xam ne jàng nañ science jàng nañu itam alquran di jàppale diine ji wala ñu nekk ci diine ji jàpp ci di leen di fàttali di leen di won loo xam ne dina mën a tax nit ki mën a woor kooram ci heure am waaye mu dog ci heure waaye itam mu xëdd ci ci heure mën naa te situé kenn koo xam ne sëriñ xaadim rasul gay bi nga xam ne ci yu bëri ba ci calendrier di l'islam yi wala ñu tuddee ñun weer wolof te wolof moomu ko yooyu yëpp mu def ci lu am solo yoo xam ne génne na heure yi ñuy xëdd génne na heure yu ñuy ndogu su fekkee ne jàng ko jàng sariya nga boo ko xoolee bu baax a baax da gis ne kii fi mu tegu foofa la bu nekkul a cent pour cent itam waaye à quatre-vingt-dix-neuf pour cent am na ko kon xanaa génne na ci ki nga xam ne moom mu nga ci cinquante pour cent wala mu ngi wala trente pour doon ay waxtu yoo xam ne dina ko génne ci bés xanaa bés dana ñëw ñu génnee ko wol leen ko gannaaw bu ñu amee ndigal ci moom ne ni mu ko génnee de moom comme moom dafa jàng wàllu biddiw yi wallu jant bi wàllu weer wi bis yi heure yi ana weer wi fan la làqu fan lañ ko mën a gis tey ana mu tey yooyu noonu comme loolu la jàng xëy na bi mu ko dugalee ci diine l'islam gis na ko lii lañu soxla ba mu jàngee ne heure bi fii la heure bi lii la kon xam na ban heure la fajar si di xar ak ban heure la fajar bi dul xar waxa lu mu ma jar la et mu mel ni kon bokk yi loolu dafay am solo ndax koor gi bari waa ne ñoo xam ne ñu ngi woor te fekk ne koor gi mu ngi yàqoo ca ba ñuy xadd mu mel ni bëccëg nga lekk yow bari wax na ko loru ci biir koor itam nga ne koor gi moo la lor te fekk ne yaa ngi loro ca fa nga xëdde ndax yaa ngi xadd ci guddi démb ga wala ci guddi bi nga xam ne moo bokk ci biis bi waaye xëdd xëddloo ci fajar bi su boobaa kon mu am yenn yiw sa yaram soxla bëgg ko am mënu ko am mu di ko wut ci biiram ba mu jural la ay jàngoro wala mu jural la ay crise yoo xamante ne kenn tegu ko du koor waaye yow yaa ko teg sa bopp ndax yaa xamul heure bi nga war a xëdd wala ko yaa seetluwul yaa laajtewul comme nag yàlla ubbi na la buntu ne fas alu ahla dhikri in kuntum laa taalamuun boo xamul dama nga laajte di kon war nga dem nga dem laajte nga xam bokk yi bëgg Sénégal bokk Afrique bokk àdduna wala këpp ci seen émission Ramadan Moubarak bi jóge fii ci 7TV ñuy wax ne amaana weeru koor ni nga xamante ne nit ñi noonu lañ ko jàppee ci wàllu médecine fekk na médecins yi fekk nañ ne yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ñu gën a xam sunu bopp ñoo ñu gën a xam mbir yëpp te génneel nañu itam mbir ya fa mu toll ak am bokk mu mel ni ki tey su fekkee ne yaa ngi woor jikko yi nga xam ne moom la la sant pour nga def ko ak jikko yi nga xam ne moom la la sant pour nga bàyyi ko koor dana la dimbale ba mu dimbale la jàppale la ba mu gën laa yombalal yi nga xam ne moom la santaane waaye tam mu gën laa jafel yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala tere kon su boobaa kon ñu xam ne ba yonente bi sallallahu alayhi di wax ne suumu tasixu wóor leen bu ngeen wooree da ngeen wër ne wër leen seen wër gi tegu ci koor jamono booba xiif taxuloon mu wax ko xiifal moo taxoon mu wax ko dama ne xiif taxuloon mu wax ko mooy bàyyi lekk ak naan taxuloon mu wax ko waaye xiifal sa bopp ci heure bi nga xam ne ci nga war a xiifal sa bopp moo taxoon mu wax ko ci sunna mun na ñetti fan yu nekk ci bis ci weer wi yaa xam nag noo koy dajale ci biir weer wi ba nga fexe bi am ko am ñoo xam ne nga def benn yoon benn fan ci fukki yu jëkk yi benn ci fukki yu ñaareel yi benn ci fukki yu ñetteel yi ci weer bu ne am ñoo xamante ne altine bu jot ak alxames ñu woor ko am ñoo xamante ne alxames bu jot ñu woor ko am ñoo xamante ne altine alxames ajuma bu nekk ñu woor ko am ñoo xamante ne siyaamu daawut liñ ko waxee indi ko ci téere yi ni boobu de moo gën ci koor yi mooy siyaamu daawut mooy nga woor tey woori suba woor tey woori suba nga dundee noonu kon su boobaa da nekk nit ku wér nit ku mucc ci yenn jàngoro yi nga xam ne mu ngi lëmbe àddina ci suukar ci jabet walla ci eh, eh, lépp loo xamante ne dina sonal doomi aadama ci yaramam walla graisse boo xam ne bari na ci sa yaram walla bokk loo xamante ne wàññeeku na ci sa yaram te fekk ne koor gi dina ko réglementé ba mu réglé wu da nga jaar ci yoon kon koor sayyidina nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ni mu ko indee ne yàllaa ko ko wax ne moom bu dee weeru farata bi ne demal nga def ko fu mu la mën a fekk ci àdduna bi nga woor ko fu la mën a fekk ci jamono weeru koor jot na acca wooral weeru koor quant à weeru koor na moom ñu foog def rek pour pini déedéet waaye dañ ko def ngir sellal ruux yi dañ ko def ngir jegeñal suñuy ruux suñuy jëmm suñuy ibaadaat ak suñu borom jalla jalaaluhu wa azza waaye kon itam yàlla mu ngi koy def pour jël nit ki mu wàccee ko ci kaw fa mu aju woon te kenn aju ko fa lu dul bakkan ak bëgg nguur ak bëgg maqaama ak bëgg daraja mu wàccee ko ba indi baa doole bi nga xam ne amul yorul manut mu boole leen ba ñu xam ne ñoom ñaar ñi ñoo mën a bokk àddina bi te ñoo ko war a liggéey te ñoo ko war a defal bariwaana nit koo xamante ne comprendre ne li yàlla santaane ci koor ci ki nga xam ne milliardaire la noonu la ko sante ki nga xam ne millionnaire la waaye noonu la ko sante itam ki nga xam ne yorul amut te muy miskin bi wala faqir bi nga xam ne yéen ñaar yéen a bokk waxtu bi ngeen di woor ak waxtu bi ngeen di woor yéen ñaar yéen a bokk itam yeneen yàlla sant ci ne boo ko defee mu fay la su fekkee ne koor gi la mu ne boo ko defee ma fay la moom itam ni mu ko dal ni mu ko digalee milliardaire bi noonu la ko digalee ki nga xam ne mooy miskin bi ak faqir ki xam ne mu nekk ci taax ya itam ni ko yàlla sante ci koor noonu la ko sante ka nga xam ne moo nekk ci àll ki nga xam ne itam mooy liggéey ni ko yàlla sante ci koor noonu la ko sante ci ki nga xam ne amul liggéey bu mu des benn ki nga xam ne moo toog ak kii tukki mu ne kii tukki may naa la ci biir tukki bi nag yow sa koor gi nga leb ko waaye bu weer bi dee nanga ma ko fay man yàlla ndax dama am lu ma diggaale ak doomi aadama yi ak mbindeef yi bu àllaaxiraa ma ne man maa di feel sama bopp asiyaamu lii wa ana ajzi bihi mu mel ni kon bu dee koor la kon yow milliardaire bi ak miskin bi ak fakiir bi la mun waaye teewul kenn ku ci nekk am na lu ma la dig pour sa gën a baax gën a rafet gën a jag gën a ñoom mooy su fekkee ne da nga yor dara wala da nga am dara wala da nga denc dara ci biir yi nga xam ne moom la la yàlla wërsëgal wërsëgal na la kër wërsëgal na la oto wërsëgal na la loo lekk wërsëgal na la dépense ñetti yoon nga man koo lekk ci bis bi mu wërsëgal la loo mën a xaddee ci bis bi mu wërsëgal la itam loo mën a joxe loo mën a maye mu ne ah. kon yow bul fàtte kon am na koo xamante ne amut mënut demal nga jox ko ngir ma yokkal la sa koor kon sama xam bi nga amoon ci ne yaa leen ëppale du la jëriñ fii waaye li lay jëriñ mooy li nga leen ëppale nga joxe ko ma dog laa yëkkati ëppal la ci kaw ndax wàccee naa la bi nga xamante ne milliardaire nga kii nekk miskin ak faqir waaye man wàccee naa la ba ngeen tolloo ne yéen ñaar yéen a bokk koor waxtu bi ngeen di woor ak waxtu bi ngeen di dogu donte kon soo bëggee nga ëppale miskin bi ak faqir bi soo bëggee nga ëppale ki nga xam ne yor na te joxewut mooy yow li ngay joxe moo tax del joxe del saraxe del maye del dimbale waaye bul fàtte ne la la nga xam ne mooy mujj koor ba nga xam ne moo nga war a joxe ci mujj koor ga kooku moom force la kooku du sarax zakat la boo xamante ne moomeelu yàlla la force la ni nga ni la santee koor nga defee ko noonu pour nga mën a jot sa koor bokk yi mu mel ni kon bu ñu doon wax ci koor dañu fekk ne koor dafa ñëw pour defar doomi aadama koor dafa ñëw pour wéral doomi aadama koor dafa ñëw ngir ñoŋal bakkan bi waaye ñoŋal ay cëram koor dafa ñëw ngir yar doomi aadama bi koor dafa ñëw ngir itam mu jël nit ki recadré ko ci dundam ci lekkam ci wér gu yaramam waaye koor dafa ñëw ngir jël doom yi aadama fa mu nekkoon ca suufa suuf mu yëkkati ko ca kaw waaye mu jël ruuxam yëkkati ko ci kaw ngir nit ki mën a jëriñoo lii nga xam ne mooy connexion bi am diggante borom bi ak jaam bi diggante nit ak yàlla mu ne nga gën maa jege te noo gën a jege yàlla nga gën a baax noo gën a jege yàlla noo gën a defee lu baax nga gën a jege yàlla kon koor dafa nekk loo xam ne bu ñu seetloo lii nga xam ne moom la defal doomi aadama bi yépp dama ne dana leen doy ci gëm yàlla ci ragal yàlla ci yaakaar yàlla moom leen waxee ne dem leen ngeen woor bu ngeen wooree dinaa leen wéral ba daal di la wax ne unzila fihi alquraanu te salaat boobu ñuy def munoo koo def te jàngoo alquraan wéeru ko boobu ngay def munoo koo def te boolewoo ko ak jaamu yàlla itam kon nga xam ne kon lépp dañ ko rënk boole ko dajale ko mu nekk benn boo xamante ne kenn mënu koo daw kenn mënu koo bàyyi kenn mënu rot ci benn waaye paquet jela boo xam ne yàlla tabaaraka wa taala sant nañu ko mu jox ñu ko ci waxin ne juróom yi mooy kenew yi nga xam ne bu ngeen ci jàppee ma jàppale leen dimbale leen te dinaa leen dugal aljanna bu ngeen ko deful ma dugal leen safara yàlla nañu ci yàlla musal koor nag ci paquet boobu la bokk waaye moom koor encore mu am beneen paquet boo xam ne nag moom ci lay jaaree ba moom mu mën a baax ci doomi aadama bi waaye mën a jëriñ doom mu ngi koy bëgg pour yegg ko suñu borom <coughs> mu mel ni si beneen yoon buy ñëw daañu gën a leeral wax ji ci lan moo koy mottali ci ay jikko ci lan moo koy mottali ci ay jëf ci lan moo koy ci lépp loo xam ne nit ki yu sew la yu tuuti la mu di ko def di ko xeeb te fekk ne jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu nee na xeebu wut don benn yoon la nga dem ca njaboot ja ca jumaa ja wala ca mbooloo ma nga jàng fa alquran ne lii yëpp mu doon loo xam ne boo ko defee jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu dina la yokkal sa koor dina la defar te dina la defar di ñaan ci yàlla senegal yàlla def fi jàmm ak sutura ak tawfiq ak taysiir xusnul xaatima saad daarini ci fi ñu toll ci réew mi ci wàllu élection yi nga xam ne mu ngi waaj a ñëw Sénégal war koo def waaye ci wàllu campagne bi nga xam nit ñaa ngi ci yal na yàlla bennool jullit ñi mu bennool leen ci kalimatullahi alxaq mu boole leen ci dëgg ak dëggu mu boole leen ci lépp loo xamante ne du am xaste du am saaga du am xeebaate waaye lépp doon ànd xam ne ku ci ne dafa am xalaat boo am projet wala programme boo am ci réew mi nga xalaat ne bii dana baax nga ne xaaral ma defi booba yenn kenn ku ci nekk doyloo loola te mu doyloo yàlla ak mbaaxam rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina adaba annar wa adxilna al jannata maa al abrar ya azizu ya gafaru ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin nabi lummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin